cheikh ibrahima saar njaañ cheikh ibrahima saar njaañ mi ngi feeñ jamono ci atum 1850 jàpp 1851 ci dëkk bu ñuy wax Mérina Sarr Mérina Sarr gii nag mi ngi ci suuf ñuy wax njaañ njaañ nag mi ngi ci région de Thiès ci département bu Tivaouane Mérina Sarr njaañ googu nag foofu la cheikh ibrahima saar njaañ mi feeñe jamono ci atum 1850 jàpp 1851 ndax ci atum gàddaay bi 1267 la te 1267 ci atu gàddaay bi dafa tàmbali julli 1850 bi jeexantale ci 1851 bi ci at moomu nag la Cheikh Ibrahima saar Njaañ feeñ jamono ci dëkk bu ñuy wax Mérina saar Njaañ nekk tim nag ci tund wii nag di Njaañ di doomu soxna Mati Jabel Diop ak kii di Maam Malick Sarr moom Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nag am na kenn ko mu bokkal soxna Mati Jabel Diop ñu koy wax soxna Faati Sarr bintu soxna Mati Jabel Diop bintu Maam Malick Sarr ak moom Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ibnu soxna Mati Jabel Diop ibnu Serigne Malick Ibrahima Sarr Njaañ waajuram sëriñ Malick Sarr moo ko dalal alxuraanul karim moo ko jàngal alxuraanul karim ba mu mokkal alxuraanul karim li tax ñu koy wax Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nag dëkk boobu di Njaañ gi mu feeñe jamono mooy li ko waral li tax itam ñu koy wax Cheikh Ibrahima Sarr Jasaaka seexul xaddim nag da koo yónni woon ginnaaw bu mu ñëwee nag seexul xaddim sant na ko ci gërëm na ko ca way mu ko wayoon di Jasaaka ma wax leen nag Cheikh Ibrahima nag lu ko indi nag ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim mu jaayanteeg seexul xaddim nag fas yéene nekk nag ab murid nag bu dëgg dëggal ndax ñu takkoo takku dañoo foog na cheikh ibrahima saar njaañ bi muy ñëw ci yoon wi da doon jàng si ci mbàkke kajoor waaye cheikh ibrahima saar bi muy ñëw ci yoon wi nag fekk na nag mu jànge ci loxoy waajuram di maam maalik saar ba yor sax daaray alxuraan di jàng ka jàngale ci dëkk boobu di njaañ mag ñi nag suñ borom defaloon na leen tawfiix yi lu ñu nekk nag ci lu baax a baax du tee nag ñuy séentu nag lu gën a baax loola cheikh ibrahima saar mii itim nag ci ñi amoon tawfiix yi nag nekk ci lu baax ba pare di séentu lu gën a baax loola ci la nekkoon nag lu gën a baax nag li mu nekk ba am bis nag mu dajeeg seexub sëriñ Tuubaa bi ñuy wax cheikh Adama Guèye ndax mbaabu googu cheikh Adama Guèye cosaanoo ak njaañ googu cheikh Ibrahima saar cosaanoo ñaari dëkk yooyu soreente wuñ daanaka sax ab séenante la kon laata yoonu murid itam ñoom ñaar amoon nañ ab xame ginnaaw bu ñu gisee ba waxtaan ba noppi nag cheikh Ibrahima saar njaañ nag demoon na nag ci jolof ci ku ñuy wax sëriñ Moor Lamin Njaay sëriñ Moor Lamin Njaay mi nag nitug suñ boroom la woon Massar Njaañ tim demoon na nag ci sëriñ Mor Lamine Njaay moomu nag nekkoon fa ab diir ngir yaakaar ne nag sëriñ Mor Lamine Njaay moomu nag mën na koo eggale ci suñ borom ci li mu soxla waaye saa su ne nag mi ngi yëg na sëriñ Mor Lamine Njaay mii nag wuute naag lool nag mbër ma miy wër sëriñ Mor Lamine Njaay moom nag ci jolof la nekkoon mu am bis nag sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñëwoon na seet ci sëriñ Mor Lamine Njaay moomu ci jolof booba nag kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mi ngi foofu nag ci jolof ci loxoy sëriñ Mor Lamine Njaay moomu bi Seexul Xaddim ñëwee seet ci sëriñ Mor Lamine Njaay moomu ci jolof ci tokkooru réewum ñaam bi ba fa nekkoon la sëriñ Mor Lamine Ndiaye dalaloon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye nag toppoon na ab tànk bu sulutu dàll ba mu jéggi nag bant bi ñu gàll ci tokkóor bi Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye jéggi bant ba nag topp tànk ba ba fekk leen fi sëriñ Mor Lamine Ndiaye dalaloon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim bi mu leen jubee nag la taxaw Seexul Xadiim nag booba am na lu mu doon wax kii di sëriñ Mor Lamine Ndiaye ba mu yàgg Seexul Xadiim nag di wax bu baax a baax a baax ci kaw sëriñ Mor Lamine Ndiaye di ko wax ne maag yow doog ñoo fi nekk na ngay wax ci kaw xaddim nag di ko wax ne ñeneen ñu bokkul ci jataay bi te war a xam nag laay waxal ñeneen ñu bokkul ci jataay bi te war a xam nag laay waxal Cheikh Ibrahima saar Njaañ nag mujj na leen fekki nag ci jataay ba jaayante ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim ci dëkk boobu nag di Jolof kër Serigne Mor Lamine Njaay moom Serigne Mor Lamine Njaay moom nag joxoon na fa aw fas ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim fas woowu itam nag Seexul Xaddim joxoon na ko kii di Cheikh Adama Gueye ak Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ itam ñu yor ko ba fas itam ci seen loxo la mujj daanoo bi Cheikh Ibrahima baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk boobu du jolof ci kër sëriñ moor ma lamin njaay moom ci dëkk bii di Mérina Sarr Njaañ di foofu mu feeñe jamono foofu la bàyyi ko kon kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nag lii moo ko indi ci yoon wi mu nekk nag am murid nag bu dëggal jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag nekkitim nag ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor ci dëkk boobu di mbàkke kajoor itim nag nekkoon na fa di liggéeyal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim jógee nag ci dëkk boobu di mbàkke kajoor ñëw mbàkke bawal laataa sëriñ tubaa seexul xaddiim nag di jóge nag ci dëkk boobu di mbàkke kajoor amoon na bisitim ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bëggoon na yónnee waaye ci ña fa nekkoon ku seexul xaddiim wax ne daf lay yónni rek nga gàntal ndax yoon wu sori wa te metti seex ibrahima saar njaañ mii nag moo jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim na ko man mii de boo ma yónnee nag ma dem ca booba nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mi ngi woon ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor fi mu doon yónni nag seex ibrahima saar njaañ nag ci saalum la ci département bu ñooro ci dëkk bu ñuy wax nag jénjël jénjël nag booba nag ku ñuy wax wax sëriñ mbàkke soxna di doomu bàyyi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moo fa nekkoon sëriñ mbàkke soxna mii sax moo meññ sëriñ abdu ja mbàkke du yooli ci jëmm jooju la seexul xaddiim doon yónni cheikh ibrahima saar njaañ ci saalum yónneen ba itim nag mooy soxna ja turé mi meññ soxna faati ja mbàkke mi nekkoon taawub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna ja turé moomu nag la seexul xaddiim doon jébbal nag sëriñ mbàkke soxna mii ngir sëriñ mbàkke soxna nag dëkkoo ko loolu la doon yónni cheikh ibrahima saar njaañ ibrahima saar njaañ jóge na nag ci dëkk bii di mbàkke kajoor ba ci saalum ci département bu ñooro ci dëkk bu ñuy wax jénjéel ngir fob nag soxna ja Touré mii ngir riit ko nag sëriñ mbàkke soxna ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim lool moo nekkoon yónneen ba cheikh ibrahima saar njaañ itam def na yónneen ba comme ni ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim doon sàkkoo ci moom soxna ja Touré moomu nag ñu ko joxee sëriñ mbàkke soxna la fa am bant yii muy sëriñ abdu ja mbàkke du yooli ibnu soxna ja Touré ibnu sëriñ mbàkke soxna soxna busa ja mbàkke ibnu ja Touré ibnu sëriñ mbàkke soxna soxna xari bintu soxna ja ture bintu sëriñ mbàkke soxna sëriñ ibrahima ja mbàkke ibnu soxna ja ture ibnu sëriñ mbàkke soxna ñeenti bant yooyu la fa soxna ja am ginnaaw bu ko seexul xaddim jébbalee sëriñ mbàkke soxna loolu itam moo nekkoon yónneen bu cheikh ibrahima sarr demaloon ku bax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk boobu di saalum ginnaaw bu cheikh ibrahima sarr jóge waatee saalum nag ba ñëwaat mbàkke kajoor lu yéeme itam nag la see ibrahima saar def ci yoon wi ndax bi muy dem di yóbbu soxna ja ture moom ba ni mu eggee warul ca fas dafa wommat fas wa ba ni mu eggee ñibbisi itim warul fas wa dafa wamataat fas wa diggante saalum ba mbàkke kajoor ngir war ma gum am ci soxna ja ak ki ko yónni woon di ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ginnaaw bu mu egsee nag ci yónneen boobu la ko seexul xaddiim sant ko gërëm ko def ci moom nag ñetti way ngiru ngërëm gu mu am ci moom te waye ko seexul xaddiim wayoon ma ngi koy wax ne yàlla na la yàlla fay yow sama xarit di Ibrahima saar jasaaka yàlla na la suñ borom fay nag ngeen ngi fay ju ànd ak nag ay xéewal nag yu sax dàkk ci nag li ngay nekk ci àdduna bi ak ëllëg yow yawmal xayaam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi wax Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ba tey ci biir way di ko wax na yow Cheikh Ibrahima Sarr na nga xam ne man mii di seexul xaddim la ci ngërëm lu dul fay nag abadan ngërëm loolu ma la gërëm sa bénéfice su àdduna la ak sa bénéfice su àllaaxira seexul bi muy tëj way yi ma ngay wax nag Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ di ko wax na nag na ngeen sax nag ci ak dëggal ak di sellal te nekk itam nag ku farloo farlu ci lu nëbbu nag ak lu feeñ lii ma la wax nag soo ci saxee nag dana dolli nag ba faw nag say may ñu teewlu ñetti wayi seexul xaddim defoon ci Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ginnaaw bu mu ko yónnee nag te Cheikh Ibrahima Sarr matala yónneen bi dem ba dikk nag Seexul Xaddim nag di ko sant nag ca yónneen ba ñu teewlu ñetti way ci defoon ngir jagleel ko jëmm jooju di Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi lazi yuuti alxikmata wa nuuru liman yasha kama yansihu ma man yasha ma salaatu wa salaam ma miftaahi huda sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma wa ma wa sahbihi sawil huda ahadu fa taxiyatun tanzilu fi taxiyaati manzilatun leylatul qadr fi layaali wa salaamun laa yunzilu fi xayrihi min kulli salaam manzilatun baytullahi alxaram fi lbuyut min abdillahi taala alqanni bi xan kulli ma siwa ahmadu ibnu mahamadu ibnu habiballah ila laqi sakki walmurdi raddi walqiliyil wa fi ibrahima alansar kaana allah bina wa bihi rahim yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah mujibuhuma an yakun fi jismika wa yaqin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 أولاك خير الجزاء ومنى داريك أولاك فاعلم بأنك عندي ذورلا أبدا وذاك ربحك في دنيا وأخراك فدم على صدق والإخلاص مجتهدا في سر والجهر كي تنمو مزاياك الحق ما تفرق من إصلاح صح والمصطلتات النازيات ايضا لتدخل دار way yooyu nag la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag defoon ci cheikh ibrahima saar njaañ ginnaaw bu mu jógee nag ci yónneen boobu mu ko yónni woon mu wéy nag des ak seexul xaddim ci mbàkke kajoor ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi koo mbàkke kajoor nag ñëw nag ci dëkk bu sell bii di mbàkke bawal cheikh ibrahima saar njaañ itam ma nga woon nag ca mbooloo ma ginnaaw mbàkke bawal daaru salaam ginnaaw daaru salaam tuubaa tuubaa nag ginnaaw buñ ba noppi ku baax ki sëriñ tubaa seexul nag taxawaloon na fi nag lii di daaray tarbiya daaray tarbiya jooju nag ñeenti daara la woon jenn daara ja Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mii nag mooy ki ko yoroon bari na mag ñoo xam ne ni muritu nañ ci ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mii moo nekkoon seen ci yoon wi Tuubaa googu sax laataa ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di dem ci géej gi Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moom la liggéeyloo woon teen biñ tudde teenu aynu raxmati xam ngeen ne ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim daraam du hasard ndax soo delloo ci yàlla may na ko ay yonentam boo ko xoolee ci njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim kenn jëf na lu mel noona ndax soo demee ci ndox mi ñu tuddee sam-sam xam ngeen ne yonent yàlla ibrahima ci moom la jógee ba ndox moomu am waaye soo ñëwee itam ci teen bi di aynu raxmati ci jàmbaari seexul xaddim bi ñu tudde cheikh ibrahima saar njaañitim ci la jóge kon ibrahima moo indi sam-sam waaye ibrahima miitim moo bënn aynu raxmati teen bi ñu tudde aynu raxmati di ndox moo xam ni ñëw tuubaa ci nga war a naan ngiruk barkeelu teen boobu cheikh ibrahima saar njaañ mii nag mooy ki ko bën ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim Tuubaa itam nag la jote ngërëm laataa ku baax ki sëriñ Seexul Xaddiim di dem ci géej gi ci atum 1895 bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim gi ci atum 1895 Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ jot na ngërëmam ba dellu na ci dëkkub cosaanam di Njaañ bi ku baax ki sëriñ Seexul Xaddiim di dem ci géej gi Cheikh Ibrahima Njaañ mi ci diggante Cees nag ak dëkk boobu mu cosaanoo di Njaañ ba ni ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ñibbisi waate ci géej gi bi mu ñibbisee ci géej gi nag def na itam comme ni ko mag ñëpp dafa ñëw ziyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim yeesalaat itam ak muritam mu wéy nag nekk ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw bu mu ci géej gi sëriñ tubaa seexul xaddim yàggu fi ab diir nag la fi def am fi takk-takk ak mbaaxaan tubaab bi duggaat ci ñuy boot ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag ci réew mi nag di gànnaar gànnaar googu nag Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ itam dem na fa dem ziyaare ji ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dem na fa itam ci yoon woo xam ne ni ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim itam moo ko fa woolu woon sàkku ci moom ab junnib addiya bu mu ko koy yiita junni boobu nag seex sidiyal moxtaar nag bu gànnaar moo ko soxla woon waaye wër nañ gànnaar ba gànnaar daj kenn ku fa amub junni buñ mën a jox seex sidiyal moxtaar googu nag amu fa ci nag ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim sàkk woon ci ñetti magam ñi ñu dajaleel ko ay addiya indil ko ko nag foofu ci gànnaar muy sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina ak moom moomu nag di cheikh ibrahima saar njaañ ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim mi ngi leen doon xamal ci lettre bi mu leen bindoon ginnaaw ñu dajalee addiye yi ba noppi suñ mënee ñëw nag ñoom ñett nag ca yoon wa nag mooy li ko gënal waaye suñ demee bu mënuñoo ñëwandoo ñoom ñett nañ fob kenn nag ci ñoom ñett ñooñu fob addiye jox ko ko mu indil ko ko nag foofu ci gànnaar ngir mu mën koo jox nag seex siidiyal moxtaar mi soxla junni ba waaye nag li ku baax ki tubaa seexul xaddim sàkku woon nag ci ñoom ñett ñooñu ñoom ñett ñooñu tim ñoo mujj ànd ca yoon wa dem gànnaar fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir mën koo jébbal addiye yooyu mu sàkku woon ci ñoom ginnaaw bu ñu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim addiye yooyu mu sàkk woon ci ñoom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag joxoon na bu ba noppi nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul ci ñoom ba xam baa reer nañ waaye cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina moo ne ko kay reer nañ waaye kii di cheikh ibrahima saar njaañ nag dafa barkeelu rek jóg seexul xaddim di ko xamal ne xamoon naa ne kay du jëfandikoo wata boor bu fanaan seexul xaddim nag joxaatoon na baneen reer ki kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ def ko nag ci ab këll reer boobu itam ginnaaw bu mu ci reeree ba noppi ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim mi ngi ko doon xamal moom Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ di ko wax ne reer bii na ngën gi mbindeef mooy ki la ko jox ginnaaw bu mu noppee itam Seexul Xadim jox na ko këll ba na ko jël ko nag di ko barkeeloo këll boobu nag Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ jëlee na ko gànnaar indiwaatoon ko nag ci réew mii di Sénégal nag yoroon ko di ci barkeelu ba fii may wax yéen nag këll bi mi ngi ci njaboot gi muy sëti Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ñooy ki ko boobu itam man mii di Abdourahmane gis naa ko laal naa ko gànnaar googu nag yàgguñu fa dañoo dil siwaat Sénégal nag di xaar ku baax ki tubaa Tuubaa Seexul Xadiim ginnaaw gànnaar ca yéen jolof Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ itam daana dem ca yéen jolof nag di yóbbu ay addiyam di ziyaare ji ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem googu itam Cheikh Ibrahima saar nekkoon na fa ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba njaareem googu sax amoon na fa kër ci kër googu mu amoon ci njaareem sax foofu la génne àdduna ci atum 1918 kër gi moo tolloog gànnaarug jumaa ji gi kër gi sax pàkk la boo xam ne ni jamono ji kenn dëkku fa waaye pàkk ba ba nëgën ci turu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ la nekk ginnaaw bi itam nag Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ taxawal na nag li ñu tuddee ay daara ba gor na itam nag ab dëkk wala gor na itam nag suuf su yaatoo yaatu ci biir réew mi ndax Njaañ googu mu cosaanoo sañcoon na fa fu ñuy wax caareen jaareen googu sax nekkoon na fa di bay di liggéey di it nag ki mu yaakaar di xaadim rasul ginnaaw Njaañ dëkk boobu di caareen sañcaatoon na itam ci diggante Gosaas ak dëkk bu ñuy wax ñuq mi ngi ci diggante Thiès ak Tiwaawoon fii ñuy wax laganite moom moo ko gor ginnaaw bu Cheikh Issa jenn jotee ngërëm la ko Cheikhul Xaddim nag yabal nag ci wetu Cheikh Ibrahima saar Njaañ mu ñëw nekk ak Cheikh Ibrahima saar Njaañ ci wetam moo tax soo demee ci way yi ko Cheikh Moussa Ka di way mi ngi koy wax ne Issa demal lagan ma fekk la faag la gën ba nëgëni suuf soosu sëtam bii ñuy wax Sëriñ Fàllu saar di doomu Maam Moor Jaara saar mooy ka fa féete dëkk bii ñuy wax Thiès itam amoon na fa kër ba nëgëni sax kër gaa nga fa kër ga nag moo nekk ci fi ñuy wax Touba Thiès ci wetu marché ba foofu sax la nekkoon bi Serigne Touba Seexul Xadim demee ci géej gi dëkk bu sell bii di Touba itam ak njabootam lu ci ëpp itam fi lañ féetee am nañu féete itam ci marché Ocass am nañu féete ci Touba Daarul Minnam am nañu nekk itam ci quartier bii di Lansar ci tool yooyu nag la nekkoon di yar di jàng ak di jàngale lu fa ñoree mu yit ki yaakaar di xaadim rasul ba ni mu génnee àdduna ci atum 1918 Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ko amoon relation la ak mag ñi toppoon ku baax ki Serigne Touba ñooñu ñoo xam ne nii bi ñu nekkee ci daara ji moom moo nekkoon seen jëwriñ ñeenti daara yi njëkk a taxawal Touba benn ba Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mooy ki ko yoroon muy daaray sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo daaray maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina daaray sëriñ Masamba joob saam ak moom daaraam di daaray Cheikh Ibrahima saar Njaañ kon bari nañu nekkoon ci mag ñi ci daaraam jooju la ñu muritoo loolu itam taxoon na mu bari ci mag ñi ñoo xam ne amoon nañu relation ngir jëwriñ gu mu nekkoon ci ñoom ci daaray Seexul kii di Cheikh Ibrahima saar Njaañ ba tax na Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ itam tudde na ko doom fa bon doomam itam jébbal ko ko ndax ci loxoom la yaroo muy maam Mammoor Jaara saar Sarr Sëriñ Ahmadu Ndumbe Xabaan seenu relation moom yéeme woon na ba tax na bi ñuy dem gannaar ñoom ñaar ñoo fa àndoon ak kii di maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ko amoon ak relation tiim la ak Cheikh Ibrahima Fall rakku Cheikh Ibrahima Fall bii ñuy wax Sëriñ Saaliwu Fall borom Daaru Xafoor moom moom nekkoon na ci loxoy Sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ ab diir bu yàgg sax ko baax sëriñ tuba seexul xaddiim sëriñ ndaam abdourahman loo naka noonu itim ko amul relation la ak kii di cheikh ibrahima saar njaañ sëriñ siré loo sànnoon si itim kasaalika sëriñ mbàkke buso itim naka noonu sëriñ mbàkke buso moom sax moo ko taxawu bi mu génnee àdduna ci ndigalul ko baax ki sëriñ tuba seexul xaddiim sëriñ mouhamadou jaw paxa ko amul relation la ak kii di cheikh ibrahima saar njaañ ba tax na sëriñ mouhamadou jaw paxa sax def na ay way ci jëmu ji di cheikh ibrahima saar njaañ ngir cofeel ak bokk guñ bokk atub xaadim rasool bi naar bi ñuy wax jawaat am naarub gànnaar la nekkoon na njaareem ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nekkoon na fa itam imaamu naafila ci jamonoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim foofu ci njaareem jawaat moom way na ay way ginnaaw bu cheikh ibrahima saar njaañ génnee àdduna mu koy kañ ci ay jikkoom ak melokaanu cheikh ibrahima saar njaañ ñu teewlu way yi ko naaru gànnaar boobu wayoon di jawaat alhamdulillahi dayman xaalij sajaat yamdahu seyxu jawaat allazi madaxuhu qablu waliyul bilaad cheikh ibrahima saar allazi وجه وجهه ملئ من أنوار سلام كحرف المسك حين يزل سلام كحرف المسك حين يزل يوم الفطى شيخ الذي لا يميل فطن هذا فقر بزيادة وتقى كريما على حين كريم خليل فطن هذا خلا لقديم وحسبه وما كل خل للقديم خليل شما إبراهيم زار سادت يمينه تقزم رزق الخلق وهو المسجد فبابك مفتاح لمن كان ظامها منه يفوه الخير حين يجي إلا كملت إلا كمل فيك سيادة وتقى وحيد قسال الخير فيك الطويل عن ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين way yooyu la ko naaru gànnaar boobu di jawaat defoon waaye jawaat moom nag dafa mel ni ginnaaw bu mu wayee Cheikh Ibrahima saar Njaañ ba noppi jëmm jooju nag di jawaat dafa mel na nag lu doyulul nag ci jikkoy Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ba tax na nag fabaatoon na yeneen way itam wayaat ko nag jëmm di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ñu teewluwaat nag yi naaru gànnaar boobu defaatoon ci Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ di jawaat jawaat nag ci jamonoy seexul xaddiim nekkoon na fa imaamu naafila ci kër googu di buqutul mubaraka ya man tasama bi afaalil aliyat alal baraya wa axlaaqi sakiyat ahni bi zal madhi ibrahima zar maxalina fina ibaatil mulimatil xalilaat man bil xadimi taala waktafa xulala xablul muridina arbabin riyadat sayidul xutbi laa nuxfa xajaibuhu xadimu xadimu afdalil bariyat badrun tasalsala min qawmin jihadisatin qurin karimin musabihin dujunaat kullun taqiyun saqiyun waabilun himamun qutbun shahirun bi awsaafi siniyaat akrim bihi min qadamin laa yumaasiluhu fi dahrihi xaatimun yema bi minnaat ama amuhu abadan fi darin soo karabin ilaa wa faasa bi tafriji kurubaati xayrul xatiyaati maa kaanat muhajalatan wa akrim maa sa yura fil mulimaat allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallam kon way yooyu la ko naar boobu wayoon di jawaat ba tey kii di Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne ko amoon kóllëre la ba tey ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ndax sëriñ Daaru Asan Njaay wëllëreem la woon soppeem la woon te lu dul loolu itam ay mbokk lañ te foofu ñu cosaanoo itam ba tey seen dëkk yi soreentewul sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi itam kasaalika Cheikh Issa Diène ko amul relation la itam ak jëmm ji di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ba tax na bi Cheikh Issa Diène jotee ngërëmam ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Seexul Xadiim yabaloon na ko ci suuf soosu di lagan ngir di ko wax ne damal ci wetu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ba tax na Ibrahima Sarr Njaañ moo ko ko jox Cheikh Massamba Mbacke mi caatu Mamor Anta Sali itam ko amoon relation la ak jëmm ji di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ba tax na itam kii di Cheikh Massamba Mbacke itam def na ay way itam ci jëmm jooju di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ba tax na bi mu génnee àdduna moom Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ kii di Cheikh Massamba Mbacke defoon na ci moom am marsiya soo demee ci marsiya bi ko Cheikh Massamba Mbacke defal ma ngay wax ne Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ku tabe la woon ku yaatu la woon ku yiw la woon te mbooleem ñi tabe kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moo nekkoon seen waajur ci wàllu tabe mbooleem Ibrahima Sarr Njaañ moo nekkoon seen waajur ci wàllu yiwee Cheikh Massamba ma ngay wéy nag di kañ kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ci marché defal di wax na nag nekk na koo xam ne ni làq na ay ngërëm ngërëm yi ngërëm yoo xam nii nag yu kawee la ci suñu boroom ngërëm yooyu mu làq nag Cheikh Massamba Mbacke mi ngi dem ba di ko méngalee gaa ya doon xeex Badar na ngërëm yañ am kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ itam am na ngërëm yu toll noonu ñu teewlu marché bi ko Cheikh Massamba Mbacke defal ginnaaw bu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ génnee àdduna بن رفع الله تبارك وتعالى إليه أعلى ما زمم هذه الأبيات لما سار مع أقلائه وأهبائه شيخ الكريم الإمام الهمام البحر الفايق الغايق إبراهيم الصار من أهل الجنة سار وأسبق إلينا أطيب دفاع ضيافته وأسهاها وأزكاها وأنماها وأزكاها وأفضلها ظاهرا وباطنا على كل حال حتى كان ذلك ين ما إلا دي إلى ديافة الجنة فردوس في المزال وقلت من حروف اسمه إبراهيم صار إبراهيم الفرد قد قبل حجيبات من المناقب خيرات عجيبات بروحه حيث أدياف الكرام حلا إحسانه كل ميرات بخايات ردي من فاق أقرانا سوي النسد وسادهم هند من ينهي نقابات هم المريدين من جود ومن كرم أبوهم الأمم بل إمام بالحلوعات همامهم في نضاء أفواههم أبدا أسكاهم حساب من في الحلاوات يولي المكارم من سوق ومن رطب ومن سرور ومن بس الموات محو المناقب بإطلاق في أبد مقدم جيش في أهل عنايات سين المقام الذي لم يكن من أرم لكن تحالاه من أحسن حتيات إبراهيم القل من حاصل حلو بلا شيء يسوء على سوق المزيات طعام من الشيخ إذنان قد يلازمه في سر والجهر kay yuhyil xaliyaat allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim loolu mooy marché bi seex Masàmba Mbàkke defoon ci jàmbaari ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di seex ibrahima saar njaañ ba tey ci kóllëre seex ibrahima saar njaañ man nañ cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Hamar Samb wóllëréew seex ibrahima saar njaañ la woon ba tudde woon na doom sax kii di seex ibrahima saar njaañ ndax sëriñ ibrahima Samb ibnu sëriñ Hamar Samb mi ngi fi woon te seex ibrahima saar njaañ la ko tuddee sëriñ Mansour Jaw bokkoon ci jàmbaari Ibrahima Sarr Njaañ ginnaaw bu mu génnee àdduna soo demee ci marsiya bi sëriñ Mansour Diaw defal na kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ yuuxu la def bi daa di jooy muy sàkku nag ñu laaj ko lat moo tax nag mu yuuxu nag daa di jooy mu ne kooku nag mooy suñu waajur ci wàllu tedd nga ci mboole séem nag ci mbooleem nag ñu àndoon ak ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ci jikko jum yoroon ak melokaan jum yoroon ci topp nag ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa ak buur bi tabaaraka wa taala mu ne Cheikh yëkkatiku woo xam ne nii nag dafa tegaloo ci jaamu suñu boroom ba nekk nag ci kawe jaamu googu mu jaamu suñu boroom amul nag benn gàkk-gàkk wax ju yaatu daal la wax Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ci marsiya bi mu ko defal ngir cofeel ak jooy gum koy jooy moom sëriñ man Mansour Diaw ñu teewlu marsiya bi mu defal Cheikh Ibrahima saar Njaañ ginnaaw bu mu génnee àdduna aouzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa sallam marsiyatun wa tansiyatun أنتم min mansour ibnu ahmadu li ummati fatimati Diop salihat radiallah taala xana mi seyqi siydi mardi ibrahima sarr alfayixi alkarimi al akrami habibillah wa habibi qadimihi ahmadu ibnu mohammadin makki raisi alkiram kullihim hafisahullah taala wa tawallahu wa nafaana bi barakatihi fi dunia wal axirati amin ya rabbal alamin fa qaala mutawajjihan abki wa arju bihi riddan min allahi ala habibati قدوتنا حبيبه الله من الفتى شيخ إبراهيم قدوتنا شيخ الشيوخ حبيب خديم الله آه على جدة تمضي نصيحتها في جملة الخلق ذات الفضل والجاه آه على أمنا الكرام معها من صهمها حب أهل طاعة الله كريمة عملا شريفة نسبا رفعة رتبا عابدة لله حسنة خلقا واهبة أملا حميمة حسب مو mahmudatu muhsinatun abadan xalilatun muminatun bi illahi alxasi muslimat muhsinatun muhsinatun abadan xalilatun laahi qaadat ilallahi xanna yowmi taybatiha sakinatun muminatun bi illahi xasi muslimatun muhsinatun abadan xalilatillahi qaadat ilallahi xanna yowma xaabat taybatiha sakinatan fi jinaanillahi wallahi ahin ala jadatin adibatin duhiyat bi ismi ibnatin mustafa المصطفى هدي لله آه على جدة صفت قلاقها طابت مناقبها صارت إلى الله آه على جدة فاطمة رصدت من كان يدينها ولاية الله آه على فقد أم ذات موفة بالخير آمرة مهيتة الله أم الله لبن من كان مطبحا منه نيل الخير حكمة من الله تقية الله في سين وفي حلن محيبة لقد xadimillahi lillahi tudaafihu lkanzi lilxaafiina qaatibatan tulaazimu sikr wa sooq ila allahi walidatun saluhat laysa laha masalun fi lbarri waljuudi waltaqwa min allahi laha min alfadli maa laa yahtawi xalamun fatan wala miqwadun sikran lada allahi rabbi irda xanaa wa xajaajiha bi maxfiratin bi cheikhi ahmadi bi rabbihi illahi sëriñ Mor Kayre itam bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim itim defoon na ay way itim ci jëmm jii di cheikh ibrahima saar njaañ xam naa ku bëgg lim ku cheikh ibrahima saar njaañ amaloon relation daa juum ci gàttal daal bépp mag mum fekkanteel ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wala réem nga woon soppeem nga woon ndax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dong nag la doon xool ci yow yow itim ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dong nag nga doon xool ci moom kon mag ñi ñoom noonu la ñu ànde woon muy kenn ku ne xaddim rasuul nga doon gis ci sa moroom mu wéy nag nekk nag ci loxoy ku baax nekk nag murit bu dëggal ci ginnaaw ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba ni mu génnee àdduna ci atum 1918 ma wax leen nag Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nag li ko tax a génn nag lii di àdduna xam ngeen ne ci atum 1891 ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim suñ boroom xamaloon na ko ne soo amee ku la demal mën naa laa bàyyi nga wéy nag di ma liggéeyal ci la soxna Aminata loo jaayante ak moom nag demal ko biñ demee ba ci atum 1918 itim la ko suñ boroom waxoon ci atum 1891 itim la ko waxaatoon ci atum 78 tim saa boo amee ku la demali tim mën naa la fee bàyyi tim nga wéy tim di ma liggéeyal seexul xadim ci at moomu di atum 1918 woowoon na kenn nag ci mag ñi di ko xamal ne buur bi tabaaraka wa taala xamal na ma ne ci at mi de war naa cee génn nag lii di àdduna waaye saa bu ma amee ku ma demal moom dana wéy nag di ma fi bàyyi nag ma wéy nag di ko liggéeyal mag moom nag nangu woon naa demal nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ngir seexul xadim wéy nag di liggéeyal suñu borom ak bu yónneentam biñ demee nag ba àpp bi jege si ku baax ki sëriñ tubaa seexul kenn nag ci mag ñi di wax mag moomu nag di ko wax ne daal la ma suñ boroom waxoon rek laa lay fàttali àpp ba daal jege si na mag moomu nag mujj na gàntulaat ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wala lam tontu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim xam ne daal mag mi dafa gàntal ci la woolu nag kii di cheikh ibrahima saar njaañ di ko xamal ne suñ boroom buur bi tabaraka wa taala xamal na ma ne ci at mi dama cee war a génn nag lii di àdduna waaye saa bu ma amee ku ma demal mu wéy nag di ma fi bàyyi ma wéy nag di ko liggéeyal moo ko yónentam cheikh ibrahima saar njaañ bi ko tubaa seexul xaddim waxee nangul na ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir demal ko seexul xaddim di ko xamal ne man ngaa dem waaye nag ay bis yi ñu dëngmal nag ci lay nekk ci diirub ay bis yooyu ko seexul xaddim waxoon cheikh ibrahima saar njaañ ci la cheikh ibrahima saar njaañ nag génn nag lii di àdduna lii moo waral génnuk àdduna cheikh ibrahima saar jasaaka jërëjëf jasaaka doomu soxna mati jóbel jóob ja ak kii di maam maalik saar nag mi ngi génn àdduna bisub dibéer fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu ci atum 1336 ci gàddaay gi juróom ci weeru baraxlu ci atum 1336 ci gàddaay gi dëppoo muy dimanche 26 mai 1918 dimanche 26 mai 1918 ci njaareem boobu kat mi ngi njaareem ci kër googu mu amoon ci njaareem nekk itam ci gànnaarug jumaa ji ci kërug boppam googu la génne àdduna ñu ñëw yëgal ko kooku mu yaakaaroon di xaadim rasuul di ko wax na sa taaliba ba Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ génn na nag lii di àdduna Cheikhul Xadim wax ne kat nañ ko ko yóbbul foofu nag ci Tuubaa ndax kat foofu la Cheikh Ibrahima Sarr liggéeyee foofu itam la jotee ngërëm loolu la seexul xaddiim sàkk woon ci mag ñi waaye mag ñi nag xawoon nañoo am ab di diital ci waxi seexul xaddiim jooju ba fopoon kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nag waajal ko ci armée yu njaareem yi ba noppi ngir fas yéene ko faa jébbal nag lii di boroomam seexul xaddiim nag mel na lu yëg loolu daal di wooluwaat mag ñi leen laaj ba xam dem nañ ba ñëwam déet mag ñooñu waroon a indi Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ci dëkk bu sell bii di Touba di ko wax ne kay ñun kay Mbàkke Bàll dañ ko bëggoon a denc kay ci dëkk bu sell bii di njaareem kay ngir barkeelu ci jëmm jooju di Cheikh seexul xaddiim bisub keroog aalu na foofu di leen laaj ba xam ak mbokk ngeen ma toppe wala ak taalibe ngeen ma toppe wala lan ngeen ma toppe mag ñi kay di ko wax ne Mbàkke Bàlla ñun kay ak taalibe lañ la toppe mu leen di xamal na jël leen Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne mi ngeen yóbbul ma ko Tuubaa ndax fa la ma liggéeyale fa la jote ngërëm foofu itam laa bëgg ñu dencal ma ko fa mag ñi waroon na indi Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne ci dëkk bu seel bii di Tuubaa bisub keroog dañoo mel ne lu attunut nag kii di Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne ndaxub diisaay ñu ñëwaat nag ci ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul yëkkati waaye dafa mel ne daal fa mu tëdd munu faa jóg seexul xadim di leen laaj nag yan xasida la ëppoon lu muy jàng moom Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne moom ñu koy wax ne jës bu mooy bu ak mu xaddimatul lamda seexul xadim na leen bu ngeen demee ba tolloog jëmm ji na di ko jàng ñenn ñu tolloog ndigg li di ko jàng ñenn ñu tolloog tànk yi di ko jàng biñ defee noonu leen seexul xadim waxoon ba noppi Cheikh Ibrahima Sarr keroog dafa mel ne aw xob seexul xadim na leen yóbbul leen ma ko Touba te ñooñee yanoo woon Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne ci dëkk bu sell boobu di njaareem war koo indi ci dëkk bu sell bii di Touba am na taalibeb Cheikh Ibrahima saar Njaañ bu ci bokkoon ku kuñ doon wax Mortala Jaañ Mortala Jaañ moom mu ci dëkk bu tudd Gosaas la dëkkoon xam naa ñi miin Gosaas danañ xam bu baax a baax jëmu jooju di Mortala Jaañ ko amoon war sëg la ci dëkk boobu di Gosaas Mortala Jaañ moom keroog bi ñu yenoo Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ci dëkk boobu di njaareem ba niñ ko indee Touba moom yénneekuwul benn yoon bi mu egsee Touba bañ yóbbu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ci armeer yi am na sump gu fa nekkoon foofu lañ tegoon Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moom mu yenni koo lii di téeñ bi dafa toppoon deru bopp bi wala deru bopp yi dafa toppoon téeñ bi ba ni mu génnee àdduna moom mortaala jaañ moom amul nag lii di kawarug bopp waaye teraanga moom ak wërsëg moom macha allah am na ko ba ni mu génnee àdduna bi ñu egsee Tuubaa nag sëriñ Mbàkke Buso moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi mbooloo ma jóge waat fa nag waat ci dëkk bu sell bii di njaareem ngir waxaat seexul xaddiim ne ko kan ndigal la ñu joxoon nag def nañ ko muy Touba nañ ko nag boroomam seexul xaddiim nag ne nañ dem wool ma njabootuk Ibrahima Sarr gi indil ma ñu dem wooy sëriñ Moodu Sarr ibnu sëriñ Ibrahima saar Njaañ indi ñu dem jëli maam Cheikh Sarr ibnu maam Cheikh Ibrahima saar Njaañ indi dem jëli sëriñ Mbàkke Sarr ibnu Cheikh Ibrahima saar Njaañ indi dem jëli sëriñ Fàllu Sarr ibnu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ indi mu des na kii di maam Moor Jaara Sarr mi mu tudde woon maam Moor Jaara magi mag booba nag mi ngi ci dëkk bu sell bii nag di Mbàkke Bawal ci loxoy jaara saar ci dëkk boobu di mbàkke bawal indil ko ko sëriñ fàllu saar moo war a fas wi njaareem ñëw na ci dëkk bu sell bii di mbàkke bawal ngir jëri si nag sëriñ Mamor jaara saar ginnaaw bu ñëwee ñoom doomi Cheikh Ibrahima Saar Njaay ñooñu ba noppi seexul xaddim nag bisub ko rek dajale na leen def ci ñoom ab dénkaane di leen wax ne seen waajuroo man maa ko yónni te yónneen bi ma ko yónni képp ku ko gisaat yaa ko fekki te seen waajur ma defoon ci seen waajur wa Cheikh Ibrahima Saar Njaañ Baay Sëriñ Saar ibnu Cheikh Ibrahima Saar Njaañ moo ne ko man mi mokkal naa ko Seexul Xaddim ne ko bisimila waxal ma dégg mu tàmbalee jàng nag way yooyu tàmbalee nag ci jasaaka ja ba egg ca yaa ja Seexul Xaddim na ko jasaaka doy na Seexul Xaddim ne leen way yii nag li taxoon ma wayoon ko seen waajuro Cheikh Ibrahima Saar Njaañ ci alliway law fulu maxfuus laa ko jële moo taxoon nag ma way ko ko bisub kero nag Seexul Xaddim garanté na fa doomu Cheikh Ibrahima a ñaanal ñu jóg dem Cheikh Ibrahima Saar Njaañ nag ay xalifaam nii la tëdde 1918 ba atum 1975 ku ñuy wax sëriñ Modou Sarr moo ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mooy ka ñuy wax maam Cheikh Sëriñ Sarr moo ko wuutu ci atum 1975 ba atum 1975 juróom-ñaari weer rek la toog ci xilaafa gi wuutu waa juróom wa Cheikh Ibrahima saar Njaañ ñetteelu xalifa Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mooy ka Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ faye woon maam Moor Jaara magi mag moo ko wuutu ci atum 1975 ba atum 1983 mu toog nag ñetteelu xalifa waa juróom it moo mujjee toog ci doomu Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye ñi xalifa li ñu tudde nag jamonoy sët yi tàmbalee wuutu nag seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maam mooy ku ñuy wax sëriñ saar Sarr ibnu sëriñ Modou Sarr ibnu Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye moo ko wuutu ci atum 1983 ba atum 2005 ñaareelu sët bi wuutu maamam mooy ku ñuy wax sëriñ Basiiru Sarr ibnu maam sëriñ Sarr ibnu Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye moo ko wuutu ci atum 2005 ba 2009 ñetteelu sët bi wuutu maamam di Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye mooy ku ñuy wax sëriñ Moustapha Sarr Sarr ibnu Serigne Mbacke Sarr ibnu Cheikh Ibrahima saar Njaañ moo ko wuutu ci atum 2009 ba 2010 ñeenteelu sët bi wuutu maam mooy ku ñuy wax Serigne Sidi Sarr ibnu Serigne Modou Sarr ibnu Cheikh Ibrahima saar Njaañ moo fi nekk 2010 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko ci toogaayu Cheikh Ibrahima saar Njaañ bi moo mbooleem ay rakkam ak mbooleem ñim séqal Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ moo xam sët taalibe ak jarbaata ci gàttal mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ gi ak nuñ ci mën a bokkee suñ borom xam na ko man na ko yàlla na ko def ci darajey seen maam jooju di cheikh ibrahima saar njaañ cheikh ibrahima saar njaañ nag am na bis buñ koy fàttaliku wala am na bis buñ ko daa fàttaliku mu dëppoo woon ak fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu di bis boobu mu génnoon nag lii di àdduna bis boobu nag la njabootam gi jàppoon daa ko ci fàttaliku màggal googu nag ci dëkk bu ñuy wax mbul lañ ko daa defee màggal googu itam nag doxal nañ ko ay ati ati ati at waaye nduxum nag moo ci mujjoon tàbbi njaboot gi nag mujj bàyyi màggal ga am na beneen bis nag buñ koy fàttaliku moom cheikh ibrahima saar njaañ muy ñaar fukki fukki fan ak juróom benn ci weer wii di weeru tamxarit màggal gi itam nag Touba daarul minnam lañ koy defee ci kër xalifaam bii di sëriñ Sidi saar màggal gi itam nag màggalug bëccëg lay doon sababu màggal gi nag mooy fàttalikuwaale Cheikh Ibrahima saar Njaañ ak mboolem njabootug Cheikh Ibrahima saar Njaañ gi ki bokkoon ci taalibe yi njëkk jaayante ak Seexul Xaddiim ki faboon ak dundam jébbal Seexul Xaddiim ci atum 1918 di Cheikh Ibrahima saar Njaañ yàlla nañu ko suñ boroom fayal te yokk ay leeram def barke ak sutura ci njabootam gim fi bàyyi lii di jafe réew mi yàlla na ko suñ borom saafara